dal leen jàmm ci seen revue people xamuñu ku déggul waaye ndooy baan bu TFM dégg na lu ne weng ndax Pape mbay góor jigéen sénégalais bi nekk tugal tendance na ko ci benn vidéo bu saf-saf Pape nee na li ko njëkk a jaaxal mooy nan la soxna ndooy baan di def ba di sëy aku mel ni moom dem na ba ni ndooy baan mooy góor jigéen numéro en ci mim réew di fàttali ni Ndoye Bane moo fi wax ni Sénégal dafa bëri góor jigéen ba pare dëgër fit di woo Pape Mbaye pour mu jox ko turu góor jigéen yi waaye dootu ko defati Pape Mbaye si ay waxam nee na Ndoye yàgg na fekkee jotaayu góor jigéen su weddee na ko laajte ñi doon fréquenté chez Iba wala chez Anthiou loolu su weesoo lu tax actrice sénégalaise yi réew lu ñu war a lijjanti la Soukeyna mi di joué ci série Nafi yi moo amee nit ñi ci internet bi di xuloo di saaga ndey di bàkkoo am far bu koy may un million góor bi may un million si neen mbaa amatina ku la may un million loo koy may lu jara la ba tey ñu des ak actrice sénégalaise yi ginnaaw Soukeyna Marie Louise jaw ak ay dara ñoo koy diwante ba taq rib ba taqal si ay jàmbur Louise nee na Racky daf ko doon abbu ay yére mu koy présenté ay nit mu mujj may ko si benn far Racky moom weddi na loolu Marie Louise accusé na Racky ëmb ba pare yàq ko téléphone bi mu yor Cheikhou Kouyaté moo ko ko jëndal gaynde Sénégal boobu capitaine équipe nationale. Cheikhou daal dafa baax. waaye ba léegi Racky weddi na loolu. waaye yemu ca nee na Marie Louise dafa tëddee ex faram si benn hôtel astaghfirullah lii ëpp na de Marie Louise li ko metti nee na Racky moo yàq deram si Babacar Gueye joueur boobu mi nga xam ne moo mujj takk Racky ak lu mën am daal di ànd sénégalais yi fekkewuñu te war ngeen bàyyi ànd di jaayante bàyyante di weerante